noo ngi dimbali ko war suñu borom subhanahu wa taala ci ñoo ngi taxawoon tànk ci laay ji nga xam ne moom la borom bi subhanahu wa taala tàmbalee parampàcc yenn ci xew-xew amuk àllaaxira comme ni ma ko jijjee tànk diggante àllaaxira ak àddina diggante bu soriyoo lool la borom bi subhanahu wa taala dogal ay xew-xew yu bari di fi am waaye fii balaa ñuy jàll mënut ñàkk rek ñun ñëpp ñu daal di yëgaat ni lii mooy aynu yërmande joo xam ne yàlla subhanahu wa taala am na ko ci ay jaamam xoolal lii lépp ñu lay nettali amu ci lenn loo xam ne fi ne yegg nañ ca xattaa bu dee dee sax ñi nga xam ne ñooy aji dégg yi yeggaguñ ci waaye sunu borom day subhanahu wa taala ku am yërmande la ci ay jaamam bal sabaqat rahmatuhu ghadabu yërmandeem moom sunu borom moo jiitu am meram tey di wax na ci yaxam alquran ni mu yërëm jaam ñi moo tax mu sàkk leen wala yazaaluuna muxtalifin illa man rahima rabbuk walida xalaqahum kon su fekkee yàlla subhanahu wa taala moo amee yërmande ju matee nii ci ab jaamam la shakka ni kon jaam bi day war naa amaat yëg-yëgaatu kon ni moom moo war a gën a am yërmande ci boppam ndax bu dee ay njariñ it ci moom lay këppwaat bu dee ay loolu kadalik sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa nufixa fi suur wal nañ bëft bi nga xam ne mooy bëft tukkiteg àddina muy yuuxu goo xam ne yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ki koy njëkk a dégg ak waaye la bu nekk ca gëttu gileemam yonent yàlla bi nee na su ko déggee daa dégg ab yuuxu koo xam ni bu jaaree ci noppam dafay sakk am xelam toj ko mu daal di dee nit dana yenu am ak lagatam gu mu rattee am soowam bay dem àddina da dogal ko ci diggante bi jeex nit dana jaayante ak nit dara desut lu dul jëndante ak joxante àddina daal di tukki mbir ma daal di fay yem nit dana jug di doxe ay soxlaam wala muy liggéey dem ba ca yoon wa alaaxira daal di taxaw mbir ma daal di fay yem kon mbokk yi kullu abdin yubaatu ala ma maata alayhi jaam bu ne la ko yàllay dekkal mooy lam doon jëf ak la ko dee fekk nit ki day bu ko fekkee moom dee ci melokaan wu ñaaw loolu lu ñàkk la mu yaakaar la mu dajeeg borom subhanahu wa taala sunu borom ni wajaat daal dinay dikk sak kullu nafsin bakkan bu ne maaha ànd nag moom saaiqun ki koy jiital di ko xammat wa shahid ak koo xamante ni moo koy seede ci ay jëfam bakkan bu ne bu dee ñëw yowmal qiyaama sunu borom daf ko boole woon ak ñaari malaaka yoo xam ni kenn ku ci nekk daf koy wattu di jëf ay bind ay jëfam muy raqib ak atiid borom bi boole ko ak ñaari malaaka ca bàmmeel ñu koy laaj muy munkar ak nakiir borom bi boole waat ko ak ñaari malaaka ñu jiital ko di indi péncam sunu borom muy saaiq ak shahid mbokk yi lii day wane nombre bu doy bu mat sëkk ci malaaka yi sunu borom bi subhanahu wa taala wa ma yaalamu junuda rabbika illa hu amul ak doomu aadama buy ñëw àllaaxira lu dul ñaar ñaar yi moom daañu ànd ak yow kenn ku ci nekk mënoo wax fenn wala nga jaar leen wax lenn wala nga jaar fenn ba rëcc déedéet borom bi mu ne wa jaat daal dinay dikk kullu nafsin bakkan bu ne maaha ànd ak moom saabiqun aji womat jëme ca yàlla mu kawem wa shahid ak koo xam ne da koy seede ca lam doon jëf noonu la ko mujahid waxee ak imam qataada ak ñeneen ñu dut ñoom abi hurayra mu ni alsaa'iq almalak wa shahid alamal abi hurayra mu ni saa'iq bi ab malaaka lay doon waaye shahid bi moom say jëf la malaaka mi da lay xommat jiital la waaye sa ëmbëb jëf moom mi ngi ci sa pegg ndax xam ngeen ni wér na ci xadis yonent yàlla bi ni yàlla daa atte jaam bi mu xool ndey jooram du gis lu dul lam doon jëf mu xool càmmoñam du gis lu dul ay jëfam mu geesu ca kanam mu du dul ay jëfam mu xool ci xarantey tàkkam du gis lu dul sawar kon foofu ay jëf rek wala nit ki lim doon jëf rek moo koy jege sunu borom subhanahu wa taala mu ni ñi ngi wax waa jooju naan ko laqad kunta yow day aji nekkoon nga fi xaflatin ci ak càggante min haada ci bisab tey bi lenn ci borom xam-xam yi ñu ni ab yéefar lañ koy wax waaye li gën a firndewu mooy laay ci kaw ñëpp la dëpp ndax alaxira moom yéefar baak julit bi moom xitaab yu mel nii ñoo ci bokk yam laqad kunta da ngaa nekkoon fi xaflatin ci ak càggante min haada ci bisab tey bi allahu akbar noo ngi ñaan suñu borom yàlla na yàlla yërëm ñu mbokk yi kaddu gii wallahi alazim dana bari ñun ko wax ndax dana bari ñoo xam ne dana ñëw alaxira fekk alaxira da leen a bett laqad kunta da ngaa nekkoon fi xaflatin ci ak càggante min haada ci bisab tey bi sóoroo ko woon bawoo ko woon xel léegi mi ngi ne nag nee na wés ci sa kaw indaale woolu doy te indaale nga yu baree baree bari yu baaxul yoo xam ne yu ñu war a segg sànni la te loolu du la tax a mucc moo tax laqad kunta fi xaflati min hada masunu iqba iqtarabat saa iqtaraba linnaasi xisaabuhum wa hum fi xaflatin mu'ridun yàlla mu doomu aadama yi day seen bis biñ leen di xisaab jege si na ba noppi te ba léegi rek ñu ngi continuer caaxaan xoolal tey doomu aadama yi dafa mel ni rek maanaam àllaaxira moom dañ leen faa garanteel lu fay baax ba noppi da ngay gis koo xam ne jàppul ni sax mu àllaaxira dana taxaw nga gis koo xam ne ni muy jëfee moo lay wax ni kii bu amee gëmee àllaaxira gëm nga des na moo tax borom bi mu ni gaa yi nan ko ñu nan ko laqad kunta yow da ngaa nekkoon fii xaflatin min haada ci càggante ci bisab tey bi ci càggante ci xew-xew àllaaxira yi fa kachafnaa dañoo wuññi an ka fa yow ripoo ak a kiiraay gi doxoon sa diggante gis dëgg-dëgg fa basaruka al yawma sa bëtab tay bi day xadiid bu ñaw la lépp loolu muuru woon a tey di nga ko gis laqad kunta fi gaflati min haada bisab tay bi day bis la boo bàyyiwul woon xel bis la boo sóorul woon kon fa basaruka al yawma xadiid tey de bët bu ñaw nga yore bët boo xam ne li la muuru woon lépp di nga ko gis da nga gis malaaka ya di nga gis sawara di nga gis aljanna di nga gis mboolem la fa yàlla subhanahu wa taala waajal ci ay xeeti mbir yu raglu war suñu borom xaashiatan absaaruhum bët saa bu gisee lu ko jaaxal da ngay gis dafay daal di tàmbalee suppeeku mel ni luy gën a ubbeeku nit ki dafay jaaxle da koy dikkal war suñu borom xaashiatan absaaruhum tarhaquhum dilla kon doomu aadama ci boppam yàlla subhanahu wa taala dana ko wuññal àllaaxira ba lépp lay gis xam ngeen ni suuf la soo xam ni yéen ci yàlla bi nee na ardul mahshar fa yàlla lay àttee jaam suuf la su yaa lool nga xam ngeen ni fu mën a dajale la yàlla sàkkoon lépp ci ay doomi aadama foofu lu rëy la weer tàll comme ak mooñ tàll ni ñareet amut nóox nóox ka ne ca collas nday joor sa day seen ka ca collas càmmoñ sa doomu aadama yépp nekk ci ron genn keppaar muy ko suñu borom gi mu war a àtte ay jaamam jamono boobee doomu aadama dana ko réccu xeetu réccu goo xam ne kenn mësut gis réccu gu nemel waaye day fekk réccu moom dootu am njariñ mooy walaata xiina manaas bay wees na mbuus dootu amati njariñ doomu aadama dana ñaan lépp lu mu xam ci xeeti njekk pour jëllu siwaat ci kaw suuf jëfaat waaye loolu du sotti law laa axartani ila ajalin qarib fa asadaq wa akun min asalihin loolu ay wax la rek kalla innaha kalimatun huwa qailuha min warain barzaqun ila yawmi yubaathuun kon sunu borom subhanahu wa taala alaxira dana jox jaam bi ak dégg-dégg akuk gis-gis xam ngeen mi nga asmi bihim wa absir yawma ya'tunana walaw tara idh almujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون واي خيت وخ يي ييب رك borom baa ngi ñu koy nettali te yeggagun ci lii lu muy wane mooy ab yërmande yërmande joo xam ne yàlla subhanahu wa taala am na ko ci ay jaamam ngi di leen dànkaaf bala ñu yegsi ci bis bu mel nii wa qaala qarinuhu sunu borom mu ni fooxa nag ci jataay ba nag fan andee nit ñi jiital leen ci seeni bàmmeel ba nu yegsi ci péncam sunu borom kenn ku ci nekk yitte ji gën a kawe fa moom mooy xam aljana la jëm wala sawara la jëm moo tax ay baraba nga fa yoo xam ne dama ni kenn du wax ak sa morom ndax kenn ku ci nekk fa ñuy feetee say jëf ndax bu rotee ban mooy rot fa ñuy séddale aljana ndax da nga fa duggeem doo fa dugg fa ñuy séddale fooy jëf yi bi ngay jot sa jot nan la mel dama ni loolee day doomu aadama ju ci nekk sa bopp ngay tal xam ngeen ni fun la nettali ne la yonent yàlla aadama dafay tiit ah nga xam ni xalaqahu llahu subhanahu wa taala bi yadi yàlla loxo lu tedd la kum sàkk teral ko teraanga ju doy ni jox malaaka yi ñu sujootal ko ah ibrahim sunu borom wattaxada allahu ibrahima xalila ah muhammad sax nga xam ne istafaahu llahu ala alaalamin ah Moussa nga xam ni kallama allahu Moussa takliman wa kaana inda allahi wajihan kenn ku ca nekk ci ñii mbokk yi ab yonent bu toy nii ak ku xam fitab yonent ni mën a dëgëree ku xam ni yàlla du yónni ku ragal ku xam ni ab yonent mooy gën a ragal yàlla keneen ku dul ab yonent ci jaam ñi su fekkee ñoom ñoo am tiitaange di doy ni kenn ku ca ne kàddu ga ngay wax ak sa morom di wax dafa mel ni ak yëgoo la mooy ku nekk sa bopp doy na la ndax kenn ku ci nekk yëg na ci mer ak dëggu gu sunu borom dëggu ci àtte bi sa tey bi boo xam ni ah xamul sunu borom mer lu ko jiitu bis bu ni mel kon loola bépp jaam ak ku mën a doon ak lu mu yaakaar te mbokk yi ñun lan la yaakaar ci ay jaamu yàlla lan lan lan yaakaar yow koo xam ni say say faraid sax matut say nawafil taxul ñuy wax yow koo xam ne daanaka say jaamu yàlla la ca ñàkk a sell moo ëpp la ca sell koo xam ni say jaamu yàlla la ca ñàkk a sell moo ëpp la ca sell koo xam ni say farata matut ba ñuy wax say waxi naafila koo xam ne yow sa njàngum alquran waxuma la bëriwut waxuma la mokkal lu bëri dama ne yow alquran bi sax mënoo koo tudd bu baax da nga koy yàq koo xam ne yow zikri yonent yàlla bi jàngale par bis mokkalul ko sax faf waxuma la da nga koy fàtteeg doo ko def lan nga yaakaar ci jaamu yàlla lan lan nga am wallahi dinaa wax mbokk yi ni amul lu nu yaakaar ci kanamu yàlla lu lu nu yaakaar ne ñoo ko moom lu gën a rëy yaakaar gi nu yaakaar yàlla yërëm man de giñ naa ci yàlla ku ma laaj ba keroog may faat sama jaamu yàlla gi ma gën a yaakaar mooy yërëm yërëm sama borom yërëm lan lan am lu baax même li nu yaakaar ni lii ay def def la kan mën wax loolu sell la kan mën wax suñu borom nangul nanu ko yooyu ay mbir la yoo xam ne bu xësee am doomu aadama ji du dañ di tiit du dañ di tiit du dañ di tiit ba kenn yàlla di ko tabbal aljanna yàlla sunu borom may ñu aljanna moo tax sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne bu ñu yegsee foofa nag qaala qarinu sa àndandoo bi nga xam ne mooy malaaka mi la yàlla dénkoon mu dina wat qaala dafay wax qarinuhu àndandoorom boobu ne haada kii day haada kii ma indi tey maa la day yaatid la nga la nga ma dénkoon a ngi nii haada maa la day yaatid mooy yàlla indil naa la li nga ma dénkoon malaaka mi dana la topp di la topp di la topp di la topp bind sa lépp du fàtte dara ba nga faatu yowmal qiyaam malaaka bi dafa haada maa la day yaatid yàlla li nga ma dénkoon a ngi noonu bi maana axbartuhu li nga ma dénkoon mi ngi nii indi naa ko teewal naa ko andi naa ko fii fa sa kanam andil naa ko wàññilu ma ko dara yokkalu ma ko li nga xamante ni moo bokkoon ca lam doon jëf moo bokkuloon ca lam doon jëf hada ma la bay yaati ki ma santoon pour ma di ko wat ah laa fatilan wala qitmiran amut lenn lu mu tuuti tuuti lu dul andil nañ ko ay jëfam fa wajadu ma amilu xaadira lañ doon jëf lépp moom fa lay nekk amut luy manqué foofu nag xam ngeen ni lu bari dox na fa saa borom yàlla daa atte jaam bu ne kenn ku ne kenn par kenn amut kenn lu dut yàlla dana la atte yow kese ba nga jàpp ne yow rek la am ci jaam du la bàyyi dara moo tax Aïcha mu ni man nuqisha al xisaaba udib yonent yàlla bi nee na ku yàlla benn bennal toskare ñeel la ah ah sunu borom kay day xool rek seet bu la naree yërëm yërëm la bu la naree lakk rakk la waaye bu la benn benn lay moom kenn du mucc xatta yow yan sas la mu ne xatta man yërmande yàlla rek moo ñu mën a yiir ñu tàbbi aljanna bu fekkee yent bi mooy wax loolu kon ku dul yent bi xawma lu mu war a wax suñu borom dana àtte ab jaam àtte goo xam ni mboolem lam doon def fàtte ko fàtte na ko na suñu fàtte nañ ko waaye yàlla subhanahu wa taala moom fàttewut lépp leen bind xoolal bàkkaar boo xam ne yow fàtte ngay def nga ko sax noo koy tuubee yow xuma la bàkkaar yi nga def te xamoo ne def nga ko wala yëgoo ko wala fàtte nga ko tuuboo waaye bàkkaar yi nga tuub sax kenn da laa garanti lu ni baal nan la la nga am mooy tuub jaar ci yoonu tuub ba soo paree di yaakaar dundee yaakaar waaye yàlla moom rek mooy baale sunu borom subhanahu wa taala danañ ko indil ab jaamam foofee ardul mahshar dama ni kenn tanewu fa kenn billahi alazim kenn tanewu fa kenn fii fii kenn tanewu fa kenn su ma nee la kenn tanewu fa kenn maa ngi ca namm ci ne kenn ku ci nekk la la fay jëriñ say jëf la laqatu ci ginnaaw muhammad ak yaakaar safaam jaag yaakaar shafaatul osma jaag ah lépp yooyu yëpp dama ne li ko gën a wóor mooy ay jëf ay jëf de ay jëf ku ñuy xëcc da ngay am fuñ la jàppal wolof yi nee na ku ñuy xëcc da ngay am fuñ jàpp waaye koo xam ne amoo fenn fuñ la mën a téye kenn du la mën a xëcc nit ki dafay def effort góor-góorlu kenn talaay li mu man ci ay nawaafil ci ay azkar ci jàng alquran ci saraxe ci tiit ci yàlla subhanahu wa taala nooyal xolam mokkal ko rub jox ko yàlla subhanahu wa taala mu yaakaar ca loolu aljanna moo tax sunu borom subhanahu wa taala bu xisaabee jaam ñi ba noppi léegi nag foofa nag fa lay séddale nit ñi kenn ku ci nekk jëm fa mu war a jëm te xam ngeen ni lii lu tënku la waxtaanee lay xew ci ardul mahshar dama ne buñ doon waxtaanee ren ba diwén du yegg li rob ci alquran rek di ci wax ci ay aayaat li rob ci ay ahadis nag di ca wax dama ni fii ba déwén dañ ciy wax du jeex waaye doomu aadama ji bu ñu ko yàttee ba noppi nag kenn ku ci nekk yàlla jox ko téereb jëfam fa amma man utiya kitaabahu bi yamini kooka defa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira ay ku yàlla jox téere jëfam ci loxob nday jooro kooka dañ ko nar a xisaabee nar a yomb kooku day dina am ci ay xeeti xéwal loo xam ne yaakaaru ko woon ku ñu joxee téere jëfam ci digg gannaaw wala ci loxo càmmoñam kooku day toskare ñeel na ko fa sa fa sawfa yad'u subura yàlla mu ni baat boo xam ni ku alku dana ko yuuxu wax ko bu alkoo kii dana wax baat yu ko gën a ëpp yu ko ëpp wa yasla sa'iran sunu borom muy daañ ko tàbbal sawar lii de fa muy am mooy arbul mahshar mooy péncam suñu borom ma nga xam ni fa lay àtte àjjanaa nga ca pegg ba sawaraa nga ca pegg ba suñu borom di àttee jaamam nag képp ku yeeyoo dugg aljanna mu dugal la fa ku yeeyoo dugg sawar tamit mu dugal la fa suñu borom mu ni malaaka bi daal di indi ki nga xam ni moom lañ ko dénkoon mu ne hada ma ladayya atid suñu borom ki mu àtte ba ay jëfam lu ko dugal aljanna amu ci wala ayaadu billahi subhana mbokk yi sunu yaram yi amul lu may werante man ak yéen ci sikk sàkka ci ni gënu ma leen koo xam te gënu leen ma koo xam ñoo ko bokk ci xamandoo doomu aadama bu ne yëg na ni sunu yaram yi day xeeti mettital yi gën a metti ci kaw suuf mënuñu koo dékku sunu yaram yi mënul dékku tàngooru àddina bi xoolal jant fam ne nam nu sore sori ko ay téeméeri téeméeri kilomètre suñu borom muur ko lan ko muur dénk ko ay malaakaam ceeñeeram mën a boccee koo foofa tàppe ci suuf si ni tay te dal gi mu dal ci suuf si sabab lay doon ni ma summi sa daal teg ci suuf si te xoolal diggante kilomètre ni mu sore muy aw tàngoor woo xam ne daanaka war sa nit sax war ko mën a mën a mën a faa war a mën a faare xoolal tàngoor wi ngay jëfandikoo suñu borom ne afara ay tumu naaral la tey tuuru mën a sawara wi ngeen di taalee da ngeen kaa fàtte a antum anshatum shajarataha am nahnu almunsiun mu ndax yéen yéen a sos garab gi nga xam ni ca la tàkk-tàkk sawara bàyyi ko wala déet déedéet suñu borom nahnu jaalnaha tazkira gis nga sawara sii boo ne kotet muy cooñu tàkk boo dëggee mu saf mu métti su la laalee nga lakk ba ñor band suñu borom nahnu jaalnaha tazkira dama ko fi indi pour mu di leen fàttali àllaaxira kër mu di leen fàttali sawara sële wa mataan lil muqwin nekk yóbbalu tukkikat yi kon mbokk yi la wax kat ba naan sunu yaram yi mënta dékku tàngooru naaj kon day tàngooru sawas àddina taxut di wax comme su àllaaxira moom booleetul ko sunu borom mu ni jëme ci jaam bi nga xam ni yàlla àtte na ko subhanahu wa taala ginnaaw bu mu ko àttee amut ci jëf yu baax lu mu duggee aljanna inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xoolal ko yàlla xisaab amoo ci baax ci mbaax loo xam ni mënoo ko duggee àjjana mën nga kaa duggee àjjana dara desul lu dul mu daal taab bi sawar amut ku lay dimbali wa ma lahum min nasirin ndimbal amu fa amut ku nan tin ma ci mbaa yaakaar ma ci mbaa sama taalibe noonu mbaa maa ko doon léegi yooyu amu fa ndax suñu borom subhanahu wa taala ay séddante cëréb ay nawlenteeg ay sant yooyu yëpp amut déedéet suñu borom la mu xam kay mooy lim la santoon def ko boo ko deful mu rëq sa digg kooku amut kenn ku cay wax jaam bi nga xam ni yeyoo na tab bi sawar yàlla na suñu borom boole ci musal yàlla na yàlla boole ci musal jaam bi nga xam ni yeyoo na tab bi sawara suñu borom daal di joxe ndigal ay malaakaam ñu ni ko coppet dugal bi sawara suñu borom mu ni alqiya fi jahannam sànni leen ma ca biir sawara sax kulla kaffaarin anid képp koo xam ni ku mën a weddi la ku dëgër la ci weddi waaye ku mën a diingat la kafaar ab sakkatu jëf la santut yàlla baaxut jaamut yàlla anid ku mën a diinat la waaye la joo xam ni mboolem li ko yàlla santoon lépp defu ca woon dara sunu borom subhanahu taala mu ni sànnil leen ma kooku ci biir sawara sa foofu rot na ci ay xadis yu wér ni yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla dana indi sawara ba mu tiim fa nga xam ni foofa la nit ñi di nekk sawara jamono jooju yàlla subhanahu wa taala dana ko yeew ci ay xeeti buum ay chaîne te su ma nee la buum ak chaîne xamal yi nga xam yow du yi nga xam moo yene foofu déedéet yonent yàlla bi nee na daañu ko yeew ci ay buum ak i chaîne lu mat juróom-ñaar fukki junni te buum gu ca nekk lu mat juróom-ñaar fukki junni ci ay malaaka ñoo koy téye ndax doole ju bari ci alquran la ngi naan innaha tarmi bi shararin kal qasr yàlla mu ni ferñeent fett fett yi muy sànni moom sawara benn bu ca tëb suñu borom da ngay yaakaar ni am taa am kaw lañ baqal mu tëb ab étage moom la ñu tëbal ndax rëy gu mu rëy ka annahu jimalatun sufr yàlla mu ni mi ngi gaaw gaawaay goo xam ni kenn mënu la koo meral yent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne xadis la bu wér fi nu toog ci ardul mahshar dinañ gis benn genre doq lu mel ni giléem baat ba na muy mel lu gudd ak onuq ak doq gu gudd bu génnee ci biir sawar di woote woote gu kawe di wax ni wakkaltu bi salaatin yàlla de man damaa dénk ñetti nit ñoo xam ne ñoom laay wër ci pénc mi ñetti façon nit yoo xam ne ñoom laay wër ci pénc mi kenn ka mooy ka nga xam ni daf doon mbërmbërlu di réyréylu di déer mbagg yàlla subhanahu wa taala ba lànk ay santaaneem ndax yooyu borom bi waru koo sant keneen ki waaye lay doon joo xam ni dafa jël yàlla utal ko morom di jaamu leneen wala yaakaar leneen lu dut yàlla keneen ki mooy ñi nga xam dañ doon nataal di desenee ka defar ay mbir yoo xam ne day am jëmm ruux di nuroog la nga xam ne mooy def defa suñu borom ba te xadis bii ma lay nettali moom bul am looy werante ci wéram jamono jooju suñu borom mi ngi nuy nettali ci alquran ni innaha tarmi bi shararin kal qasr sawara de mi ngi sànni ay ferñent yoo xam ne comme taa am kaw takaadu tamayazu min al gayb bu doon ab morso suñu borom ni xotteeku rekk ko dese ndax mer takaadu tamayyaz xotteeku rekk ko dese min al ghayr ndax mer ida ra'athum min makanin ba'id sawara de bu mu ko daandee ay kilomètre kilomètre kilomètre sami'u laha taghayyudan wa zafira yàlla mu ni riir mu métti ma boo ko daan doon millions yi kilomètres yàlla mu ni te ngay dégg riir ma nga xam ne moo fa nekk sami'u laha taghayyudan wa zafira wa ida ulqu minha makanan dayiqan muqarranin daaw hunalika subura lii lépp di ay xeeti tëkku yoo xam ne borom sax daf nu koy tëkku ndax nu bàyyiwaat xel bu baax ni àddina li fi nekk lu ñàkk solo la wallahi lu ñàkk solo la fala taxurrannakum alxayatu dunia yàlla mu ne àddina bu ñàkk solo bu mu leen wor bu mu leen fàbbi bu mu leen galgal bu mu leen yàqal wala yaxurrannakum billahi algarur amul benn solo amul benn njariñ li nga doon dukkat di daw ci gannaawam lépp tey mi ngi nii war nga ko gannaaw bin lay suul ana sa jëkkër fu mu nekk ah nga xam ne fu mu musa ana laaj rek mu daal di taxaw anamu ana sa soxna fu mu nekk ban lay xisaab dama ni da nga séen koo xamante noonu sax balay daw yawma yafiru almaru min axihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi doomu aadama dama ne di nga séen kuy ñëw sa soxna la woon sa borom kër la woon sa baay la woon ak lu mu gën a jege la gën a yey damay da ngay làq wut foo làq ngir sa jaamu yàlla yi nga yore bu mu ca am ndax taloo joxe taloo maye tey fi mu nekk nii sa bopp nga tal moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ni alqiya fi jahannam tàbbalal leen ma ci sawar jahannam te baatab jahannam baat bu tar la mbokk yi wallahi baat bu tar la tekkiwul ni sawar rek lay tekki déedéet dëgg la jahannam mooy sawar waaye gis ngeen baatab sawar muy annaar yàlla soo dara lim ko lim ko baamu ci alquran mat na téeméer yoon ak ñaar fukk ak juróom-ñaar baatab annaar sawara rek téeméer yoon ak ñaar fukk ak juróom-ñaar baatab jahannam mii suñu borom lim ko baamu ci alquran ëpp na ñaar fukk yoon ak juróom-ñaar loolu da lay wane solo soo xam ni am na ko ak bàyyi xel boo xam ne jaam bi war na ko bàyyi xel alqiya fi jahannam suñu borom ni tàbbal leen ci sawara jahannam kulla kaffaarin anid képp koo xam ni ab weddi waa kon la waaye anit mu nekk koo xamante ni kuy diingat la mu yàlla subhanahu wa taala ak dëgg man naain lil xayr waa joo xam ne daf doon tere aw yiw ku soxoor la wu woon ku lànkoon la mu woon ci bañ a def aw yiw te xam ngeen ni man naain lil xayr ñàkk a def yiw ak soxore ci yiw sa bopp ci lay njëkke ndax nit balaa moo defal yiw kenn defal ko boppam pas-pasam setut jaamu yàlla am baaxut kon kookee digganteem ak boromam bu setul digganteem ak keneen taxut di wax man naa añ lil xayr jëmm la woon joo xam ni borom bi subhanahu wa taala mu ne ku ku gàttal ñu woon la ci aw yiw ku gàttal ñu woon la ci ay yiw mboolem àq yi dox digganteem ak borom ba matalu ca dara kon digganteem ak jaam yi taxut di wax moo atat ku jéggi woon dayoo ci féttéerlu man naa lil xayr mu'tad waaye jéggi woon daya teg féttéerlu ak yëg boppam murib waaye dëkkee sikki sàkk ci alquran dëkkee sikki sàkk ci diggi yàlla yi boo ne àllaaxira mbaa nga ne yonent bi mbaa nga ne alquran moom day ma nga teg sikki sàkk moo tax ngëm dinaay wax gëcc gën a wér mooy goo xam ne irtiyaab bokk ci ah li sunu borom naan ñi gëm yàlla summa lam yartaabu te sikki sàkkawuñ ci dara seen ngëm ma nga sax fam sax màgg fa màgget fa am fay reel ba am cay xob loolu mooy ngëm gu dëggu yàlla na borom bi defal na ko subhaana sunu borom subhaana taala mu ni waa jii day alladi mooy ki nga xam ni jaala maa allahi dafa wutal yàlla ilahan axar dafa wutal yàlla meneen morom koo xam daa wutal yàlla morom gëm nga ni nit am na keneen ku ku ku xam kumpa ku dut yàlla kon yaa ngi wutal yàlla morom gëm nga ni am na koo xam ni bu waxee léegi yàlla day def par force mu neex yàlla mu naqari yàlla wala ayaatu billah comme ni ko ñeneen ñi waxee yaa ngi wutal yàlla morom jàpp nga ni am na koo xam ni am na sañ-sañ ci jaamu yàlla yi comme ni yàlla amee sañ-sañ jàpp gëm nga ni am na koo xam ni am na sañ-sañ ci def defi kaw suuf comme ni ci yàlla amee sañ-sañ yaa ngi wutal yàlla morom mu ne alladi jaala maa allahi ilahan axar ki wutal yàlla morom nga xam ni boo amoon jom boo amoon jom te xam li nga war a xam lépp wallahi di nga xam ne yàlla amul morom lii jëlul ay tegtal yàlla amul morom dama ne yàlla amul morom bu mu amoon jom te am xel jëru woon ahlu sunna wal wala wala man aqida ci indi ay tegtal jëru ko woon wallahi jëru ko woon koo xam ne rafaa as-samaa bila amad wa basata al arda ala ma'in fa jama wa qassama rizqa walam yansa ahad suñu borom yëkkati asamaan te kenn fekkeewul ba mu koy yëkkati amul benn kero bu ko téye lan suuf si ba mu tàlli ñereet lu mu neex def ci kawam qasama rizqa walam yansa ahad moo séddale wërsëg amul ku des wallahi amul ku des kii di xëy jaay butéel kii di xëy jaay gerte léeg-léeg nit da lay romb di jaay loo xam ne dana ku ñàkk fayda fekk déedéet wallahi qasama rizq ki séddale wërsëg mooy jaarale ku nekk wërsëgam fam war a jaar kon picc yi taxdu qimaasan wa taruux bitaanan amul benn bitt ci àddina bu ñuy voté ngir picc yi nuñ ko dundee te ba léegi ñu ngi dund wa ma min daabatin fi l ardi illa ala allahi rizquha amul luy dukkat ci kaw suuf lu dul yàllaa yore wërsëgam xoolal suñu borom subhana taala mu ne a amintum man fi samaai an yaxsifa bikum al arda fa ida hiya tamuur ndax am ngeen kóolute ni ci ne yàlla daanul doon jékki-jékki ba mu yàgg rek mu digal asamaan ni ko fëqal rek daanul ma ci kaw sama jaam yi léegi ñu xam ahan kay wallahi lu mën a nekk la a amintum man fi samaai an yursila alaykum xaasiba yàlla yabal ci yéen ngelaw loo xam ni bu dikkee yéen ñëpp lay faagaagal mu ni fa sa taalamuuna kayfa nadir kon di ngeen xam li may wax lu xoolal loolu kon dama ne yàlla mooy ku màgg ki amut morom wallahi aajolool ñu koy wutal ay tegtal bu sunu borom waxoon ni nokk gelawam li nuy nokki ni ko taxawal benn barab benn seconde rek jaam yi xam ci dara amut kenn ku nuy jox ñuy nokki ku dut moom xoolal sunu borom boo lekkee nga lekk ba dara sut lu dul jeex na reetal moom nga bàyyi sunu borom xoolal xoolal doomu aadama tey bu fekkoonte ni dafa taxaw buntu hôpital wallahi ci ngay xam yàlla soo tala ku xereñ la am na koo xam ne tey fi ne bu lekkoon balaa moo rees dana naan ab doom bu naanul doom du rees am na koo xam ne fi ne loolu la ci lekk lu mu ndawe ndawe ndawe aajoo ndax problème mu reesal la am ndax am na ci biir loo xam ne borom moo la waajal mu nekk reesalukaay loolu bu paanee mbaa mu yàqu wallahi fa sa taalamuuna kayfa nadir keroog nga xam ne yàlla subhana moo moom moo man moo am tey moo am sañ-sañ su ko defee borom subhanahu wa taala ak anam aajuwul benn tegtam moo tax sunu borom alladi jaala maa allahi ilahan axar kii nga xam daa wutal yàlla morom jàpp ne am na keneen ku am sañ-sañ ku dul sunu borom nga xam ne yatawaffakum bil layl wa yaalam ma jarahtum bin nahar guddi jot nga futtee ko ba set wecc nga daan tëdd jamono bi nga tëdd sunu borom ni xoolal ni ma la jekkoo rek bu fekkoon te ni tey yàlla day am ay occasion bu fekkoon yàlla dana am na occasion bu muy gën a jekkoo nit te jekku nañu ci waxtu wu ne xool ni mu jekkoo xoolal ni mu jekkoo te dara xewul bu fekkoon dañ koy melal ni am na occasion bu muy gën a jekkoo nit xool yatawaffakum bil layl futtee ko nga ba set wecc jaaxaan tëdd sunu borom wa yaalam ma jarahtum bin nahar moo ne li nga yëndoo lépp xam naa ko waaye nag yàlla da doon njëkkantu mbaa muy bettante mel ni koo xamante ni sa waay day moromante ki muy defal di njëkkantu mel ni koo xamante ni boo ko rëccee fii du la jàppaat fële déedéet dama ni bu la rëccee boo ko rëccee boo ko rëccut bu la jekkoo fii bu la dul jekk yooyu yëpp amul solo xam nga ni am solo mooy daan la takk yët la ko yët goo xam ni neex da nga dem naqari da nga dem xool doomu aadama bu faatoo dañ koy def dama ni nii def ku dee wallahi xel la muy wan nit ni bu yàlla doon jekku ni ma ni tey gëm na koo jekk kon xool yow koo xam ne ba ngay bër di bër di ka bër di bër di sax yàlla jekku na la tey bër di bër di woo takk nañ la ba nga dëggal doog a yët yàlla amut kuy deelu dañuy takk ba mu dëggal doog a yët suñu borom kon bu doon kuy jekkuwaat dama naan fii moom gën na la faa jekku rawatina ba nga xamante ni moom daf laa ihaata jekku la ci wàll bu nekk moo tax suñu borom ne alladi waa ji nga xam ne yeyoo na samara jaala mooy ki nga xam dafa def ma allahi utal yàlla ilahan axar utal ko morom suñu borom ni kon fa alqiyaahu sànnil leen ma ko fi l adabi shadid ci mbugal mu tar mi wa ma zalamuhum allah yàlla tooñu leen de walakin anfusahum kaanu yadlimun bal ñoom ñoo tooñ seen bopp wa ma rabbuka bi dallaami lil abid yàlla tooñut kenn jazaan wifaaqan yàlla mu ni fay guddëb koog lañ doon def kiif kiif la ndax nan def rek laa leen fay kon lii doomu aadama bu koy xalaat mu yëg ni laaya ji waxul ak ma sàmb waxul ak ma demba man mii wax ak yéen ñiy déglu ñun la laaya ji waxam lii da nga ci mucc doo ko mucc xamoo kenn xamut allahuma illa ma narjuhu min rahmati rabbina alghafuri arrahmani arrahim li ni yaakaar ci yéen ma ni sunu borom ji nga xam ku mën a bale la ku mën a jéggale la ah nga xam ne saa bu ñu tàllalee abu faddaraa loxoy toroxlu ñaan ko dinaa wax ne yàlla subhana taala boole ñu mbugal nu dolliwu ko dara wallahi dolliwu ko may ñu aljaddaam dama ne wàññiwu ko dara lam yore doyewu ko dara naka la nit di amee soxla xelam di daj ci awali wax la ci sam xel te nga di ko gëm yàlla naka la sam xel di daje keneen ku dut yàlla subhanahu wa taala allahu akbar yàlla mi nga xam ni bi yadihi xadainu samawati wal ardi wala yantafiu bi caabi man nga day xéewali asamaan ak suuf lépp a ngi ci loxoom te du yàggoon jariñoo ko la yantafiu bi ma indakum yanfad li fi num lépp ay jeex wa ma inda allahi baaq la fa moom du jeex ah bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yasha sunu borom dafay joxe nu mu ko soobee bal kay ab loxoom kay saxaa dafa tàllalu tabe lool bu dee yonente bi salaa sallam lañ lay melal ci weeru koor ab loxoom day tàlli tabe ba gën a gaaw ngelaw fa kayfa ka rabbu muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon doomu aadama warul daj cim xelam kenn ku muy yaakaar ak ku muy dimbali ko ku mu bëgg mu muccal ko dul yàlla subhanahu wa taala sunu borom ni fa alqiyahu fi ladabi shadid tàbbal leen ko laa wax ci mbugal mu tar bi subhanallah sawara bi ko yàlla subhanahu wa taala sàkkee dafa wax malaaka malaaka ni ko demal nga xoolal ma sawara ab malaaka dem xool sawara dikk ba mu dikkee mu ne ko yàlla fii de sàkk nga ko wal kenn du fi dugg sawara moom ni ma ko gisee ak ni ma ko xamee ni mu mettee kenn du fa dugg mu ne ko lu tax kenn du fa dugg mu ne ko taraay ga ak mittitaay wa ku ko xam foo mën a jaar ba moytandiku bu dee dàll weñ ngay sol di ko dox ba mu dagg dañ ko def sunu borom mu ne xoppat bil makaari xoppat bi shahawaat ñu muuree ko ay bànneex subhanallahi alazim moo tax sawara li fay dugal li lépp bànneex kese la lettre julli sa bànneex nga topp njaaloo gi sa bànneex nga topp jël yi fi jàmbur sa bànneex nga topp fen waxtaan nga topp mu neex nga wax lu dut noonu toujours xubbat di shahawaat ay bànneex rek lañ ko muuree borom ni tàkk aljanna melal ko melokaan yoo xam ne malaaka mi ko tiim sax def caa yéemu mu ne yàlla fii moom boobu nga xam ne ñëpp a dugg kenn du manqué lu tax mu ne ko aljanna ni mu yànjee ni mu mel melokaan wi mu am ku ko xam te gëm ko da nga fa dugg sunu borom mu ne xubbat bil makaari dañ ko muur ak ay mbir yu naqari jaamu yàlla gi ngay def effort bi ngay def coono bi ngay def pour a daf am aljanna wallahi métti na waaye tey ñu góorgóorlu ba yàlla may leen aljanna tey xooleen anañ ah fii la fi anhaarin jannati yangamisuuna fiha ñene ca biir sew day ajana ya di ballaw ci ko ñooñe nag yëg nañ métit ya leen doon dal ci àddina fàtte nañ ko fàtte nañ ko laa wax natu kulla ma kaana yaaruduhum fi dunia lu leen doon gaar ci àddina min aaraam wa ahzaan ay naqar ak i tiis daanu damm daanu dee feebar bu dut wér lu mu doon ci ay mettit damay wax ni bu duggee aljana da koy fàtte wa kadalika loo amoon ci bànneex boo duggee sawara nga fàtte ko moo tax borom sokaa mu ni fil adabi shadid mbugal mu tar bi subhanallahi alazim mbugal moo xam ni damay wax ni melal ko dañoo xam wan wan wan yoon moo gën a gaaw sax ci melal ko amut yoon wulu xam ne wii moo gën a gaaw ci melal ko ndax rek lu koo xam ne sawar rek lu na ko wallahi jooloo na yonentu saa sallam ba tàyyi sawar mucc ci jooloo na yonentul ba tàyyi billahi alladi la ilaha illa hu julli na ba tàyyi jooy ba saxaaba yi dañ naan dañuy dégg adirun ka adiril mirjal ci luy baax ni muy riiree ñun noonu la ñuy déggee yonent bi jooyee noonu ndax tiit ndax bëgg a mucc bëgg a mucc koo xam ne gufira lahu ma taqaddama min ma taaxar wa atama allahu ni'matahu alayhi wa hadahu siratan mustaqima ah jaalahu nabiya xayril umma ah nga xam ne aw xeetam rek am na ci ñoo xam ne tiitaange ju mel ni waru leen woon a mën a gaar ndax yéen ci am neexee da ngay dem àjjana ba nopp mbokk yi xoolal koo xam ni yonent bi ne na ko yow mu ne naa mu da ngay dem ajara te keroog la gën a tiit subhanallah alazim xoolal saabit ibn qays saabit ibn qays ibn chammaan nga xam ni moom dafa gëmoon pour wan la nun subhanallah wallahi mbokk yi suñuy xool dafa danoo dee alquran bu mosaan a wàcc ñoom ku ci ne doo joxoon kenn da nga naan man naa tax mu wàcc xoolal saabit la tarfau aswatakum fawqa sawti nabi mu ne man la yàlla wax parce que man maa gën a ñàkk yar ci saxaaba yi ndax man maay def su may wax di yuuxu ca kaw te ju biir néegam di jooy dafa jooy ba furi furi laa furi xam ngeen nit bu yendoo jooy ba ngoon jot ni kanamam di suppee ko furi noonu la saabit mel toog jël loxom wékk ko ci bopp lalam yonente bi xool xool xool gisul mu ne saxaaba yana saabit ñu wër wër ba gis ko biñ ko laajee lu ko tax a toog muy damaa wóor ni yàlla man lay wax xoolal yéen ci waxu ko yow la te xool ñoom kaa kayfa kaanu yata'aamaluuna maa ayati alquran mu ni man la yàlla lay waxal ndax man maa fi gën a ñàkk yàlla su may wax ak yonent bi ca kaw lay wax biñ dikkee wax ko yéen sa sallam mu ni déedéet bal kay nee nañ ko huwa min ahlil janna moom kay ci waa àjjana lay bokk bal sax kay moom buy dee sax day shahid la hawla wala quwwata illa billah Abdullah ibn Abbas mi dañ ko daan gis muy dox ñu xam ni kii àjjana la jëm xoolal kee xasatul yamaama ah subhanallahi alazim xam nga lan la def dafa waxee na xaritam ni ko kaay mu ni ko gis ne shahada ñaan nañ yàlla am ko pour ñu bañ a dem nañ yeew suñu bopp dafa jël benn ëkku garab jël tànkam yeew ko ci parce que xeex ba métti woon ba am saxaaba yu daw mu ne man su ma dawee dama am shahada mu jël tànkam yeew ko ci garab pour nee na su daree tànk yee- yeewaay bi téye ko nga gis saxaaba boo xam ne ñaari tànkam la gas ci suuf si suul boppam lan moo tax mu def ko parce que bëggul daw xoolal ñooñu nga xam ne yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam diggoon na leen aljanna xoolal ndaw soosu nga xamante ni jàll jigéen joo xam ne almaratu sawda ndaw soosu nga xam ne doon am ay jinne yu koy dikkal yonent yàlla ne ko ma ñaanal la nga wér ak ma ñaanal la yàlla seytaan bi la fay te nga tàbbi àjjana bu la dàqal mu ne ko mukk bal koy am aljanna xoolal àjjana fi mu leen tolloo yonent yàlla daal di koy ñaanal yàlla subhanahu wa taala Abdullah ibn Abbas mu ne ku bëgg a gis meer bu ñuul buy dox te war a dugg àjjanaa ngi nii demal xool ko loolu la wax ay ndongo mu doon jàngale bu ngeen bëggee yéen du meer bu ñuul buy dox te war a dugg àjjana mu ne xool leen ma nga ne li xoolal ñooñu ak kayfa kaanu yata'amaluna ma alquran aaya di dañ doon tiital kaanu waqaafiina li kitaabillah xel yu ci waay doon daw lu mu bari bari bari dama ne bu alquran àddoo rek ñu taxaw bu alquran àddoo rek ñu taxaw moo tax borom bi subhanahu wa taala lii mu def ak melokaan wi mu melal sawar muy al adabu shadid léeg-léeg mu ni al adabu muhin wala hum adabu muhin mbugal mu doyati mbugal mu doyati adna ahli nnaari adaban summa huwa fi dalika al waqt yadunnu annahu ashaddu nnaasi adaba ki gën a tuuti la mbugal biir sawara te jamono ji ñuy nettali moom day jàpp ni moo gën a metti le mooy koo xam ne yonte yàlla bi ne ñaari xotti carax lan ko solo ñaari xotti carax yoo xam ne ci sawar lañ ko defaree shirakaan naalaan min naar yonent yàlla bi ne ñaari xotti carax yoo xam ne benn bu ci nekk ci xalu sawara ca la jóg yonent yàlla mu ni boobu ak yuram mi ngi bax mu ni kii moo gën a tuuti le mbugal waaw léegi bu fekkee kii moo gën a tuuti le mbugal ana ki gën a rëy le mbugal ana ki gën a rëy le mbugal loolu nit ki su koy xalaat di bàyyi xel ni moom mën na ci bañ a mucc wallahi mbokk yi ñun mën nañ ci bañ a mucc de wal- sunu borom subhanahu wa taala mu ni qaala qarinuhu ci lay daal di wax àndandooram bi nga xam ne mooy cheytaan rabbana yow sunu borom ma aqwaytuhu kii de du man maa fi ko sànq walakin waaye day kaana dafa nekkoon fi dalalin baid cheytaan mi nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala def muy ànd ak doomu aadama ci waxtu wu ne borom bi subhanahu wa taala mu ne bu yowmal qiyaamee dafay nekk aji dañ talu aji génn ci ay jëfam wa qaala ci lay wax qaala ci lay wax qarinuhu àndandooram bi di cheytaan rabbana yow sunu borom maa atghaytu kii nga xam ne day ku yeyoo la mu sawara du man yàlla maa ko sànq déedéet walakin li am mooy kaana dafa nekkoon fii dalalin baid ci ak cànkute gu mag gu rëy loolu dafay firndeel wax ji sunu borom subhanahu wa taala di wax ni wa qaala alcheytaanu lamma qudiya al amr inna allaha waadakum waada alxaq wa waadtukum fa axlaftukum sunu borom mi ngi nuy nittali ni cheytaan bokk na ci yi muy def yowm alqiyama dina wax ni inna allaha waadakum waada alxaq yàlla de moo leen diggoon digab dëgg alaxira la woon dina am te am na aljana la woon dina am te am na wa waadtukum man dama leen digoon fa axlaftukum li ma leen digoon dara amu ci wa ma kaana li alaykum min sultaan amul kenn ci yéen koo xam ni ah amel naa ko lenn ci ak force wala ma digmal ko ci li nga xam mooy ak mbon illa an daawtukum lu dul damaa woote woon fastajabtum lii ngeen wuy kon nag falaa talumu ma kenn yet walumu anfusakum yet leen seen bopp lii ci mooy dëppoo ak wax jii muy wax borom subhanahu wa taala mu ni maa atghaytu du man de maa ko sànq walakin waaye day kaana dafa nekkoon fii dalalin baid ci ak cànkute gu mag gu bér foofu ay wax yu bari rot na ci ci alquran sunu borom di ko nettali nga xam ne doomu aadama yi danañ xëccoonte di waxante ay kàddu di yéenante mbugal rabbana haulai alladi adalluna fa aatihim adaban daafan fi nnaar ñi nga xam ne ñoom ñoo sànk ba yeyoo sawar ñu ngay kalaame yàlla subhanahu wa taala na jël ñi nga xam ne ñoo leen sànk gën leen a lakk ca sawara yàlla mu ne li kullin daaf yéen ñëpp ku nekk am nga wàll sunu borom subhanahu wa taala mu ne laa taxtasimu ladayya bu kenn joxar bee seenteeg morom ma ay kàddu fii fi man déedéet loolu du am solo diwa ma ko teg diwa ma sànq diwa ma waroon yoonu mbar wi sunu borom mu ngi am solo laa taxtasimu la day bu kenn wecconte moroomam ay baat laa taxtasimu la day bu kenn xuloo ak moroomam ci sama kanam waqad qaddamtu te fekk ne jiitu woon na bu yàgg ne yónnee woon naa leen bil waid ci ak xubbe wallahi qad arsalta ilayna waidan bal aw aada yàlla yónni na ci ñun ay dëkku bal ay mbir yoo xam ni ay jajju la xam ngeen sunu wa yuxadirkum allahu nafsa yàlla mu ne moytandiku leen seen borom yàlla mi ngi leen di moytandiku loo boppam wallahu raufun bil ibad borom bi subhanahu wa taala ay aaya yu bari daf nuy jajju di ñu deltuloo gannaaw di ñu tuubloo di jonjaat suñuy xol ci yëg gu mu war a yëgaat borom bi subhanahu wa taala ak peeg gu mu nu peeg ak am doole gu mu am doole sunu borom mu ni na muy mbugale de kenn du ko mbugale waaye la muy am ci ay xéwal kadalik kenn musul gis xéwal yu ni mel moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ni laa taxtasimu la day bu kenn joxer benn tenteeg morom ay baat wa qad qaddamtu ilaykum bil waid te kat li am ba des mooy mboolem luy tax nit jajju luy tax nit dëpp luy tax nit tourné sunu borom mu ni yónnee woon naa leen ko sunu borom mu ni maa yubaddalul qawlu la day wax ji moom xaw ma fu muy suppee ko waaye du fii maa yubaddalul qawlu la day la ma leen waxoon ni danaa ko def te na ma koy defee noonu laa koy defee sunu borom mu ni du ma si suppee ko maa yubaddalul qawlu la day la ma leen digoon ci àllaaxira dara du ko suppi la ma leen digoon ca sawara na ngeen ko déggee woon ni ngeen koy fekkee la ma leen diggoon ca aljana tamit kadalik maa yubaddalu lqawlu laday wa ma ana bi dallamin lil abid man yàlla day nekkuma koo xam ne damay tooñ benn jàmm wallahi boo tooñoon bu la neexee yow sunu borom bu ko neexoon mu tooñ te bu tooñee fenn la du mujj fenn laax du ko mujj fenn du ko mujj waaye pour wane maandute ak jub ndax mooy jàngale te li muy jàngale da cay jiitu ñëpp mu ne laa dulma al yawm tooñ amul tey laa dulma al yawm kenn duñ ko tooñ inna allaha sari'u al hisab te yàlla ku gaaw àtte la waaye duñ defal kenn lu moomut sunu borom ne laa taxtasimu ladayya bu kenn xuloo fii wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id xupp yi tiitaange ji li leen di jëloo ci yàlla yàggoon na waxoon nañ ko léegi doomu aadama jëriñu ci tuubul dellu ci yàlla jëlul alquran def ko mu nekk wéttalam jël alquran mu def ko jonjooxu kaayam di ko dëpp wallahi alquran gaaw na ci di dëpp ak gaaw ci di dëpp di nga dëgmal benn mbir sa xel dem ci aaya da ngay dëpp bu gaaw te kenn du la wax moo tax ma ne la saxaaba yi kaanu waqaafina li kitaabillah alquran bu àddoo rek ñu dëpp loo mer mer mer mer mer bu alquran ñëwee nga maîtriser wu loo kontaan kontaan kontaan bu alquran ñëwee nga maîtriser wu sunu borom ni tilka lii ngeen di dégg yépp xududullahi mooy frontière yàlla yi fala taataduha bu ko kenn joggi te ku ko joggi ku ne wa man yataadda xududallah frontière yàlla yi daxitayul yàlla yi ku ko joggi faqad zalama nafsa na xam ne tooñ na boppam subhanallah xoolal faqad zalama nafsa tooñ na boppam ku ko joggi ma def ko nangam ku ko nangam ma nangam ko te mënoon na ku ko def ca saa sa mu daal lay faagaagal nga jóge fi walaw yuaxidu llahu nnaasa bi dulmihim ma taraka ala dahriha min dabba su doon yàlla li ñuy def ci ay tooñaange borom bi subhanahu wa taala daf nu koy toppee dama ni kenn du fi des ma taraka alayha min dabba amul ci kaw suuf ku fi des waaye borom bi subhanahu wa taala xam na ni aji xam la ndax azaliyun abadiyun yaalamu ma kaana wa ma lam yakun wa ma lam yakun law kaana kayfa yakun li amoon ba pare li amagut hatta la amut bu fekkoon dina am su doon am nan lay amee borom bi xam na ko laa yujizuhu shay'un fil ardi wala fis sama kon jekku na la ci wet gune kon borom bi subhanahu wa taala amut lu ko muy tooñ déedéet laa dul man yow sunu borom mu ni tooñ amut moo tax mu ni maa yubaddalu lqawlu la day borom bi subhanahu wa taala mu ni amut kenn koo xam ne dana tax ñu soppi sunuy wax fii wa ma ana déet man suñ seen borom bi bal laamin di tooñ lil abidi ñeel ñi nga xamante ni mooy samay jaam maanaam lii ak garanti la guy wan bépp jaam ni ko amut lu ko yàlla lay tegal lu moomut déedéet waaye lépp lu ko yàlla tegal ci ay balance yiwam na yëg ni moo ko fa def sunu borom subhanahu wa taala mu ni yow ma bisu keroog muy bis ak alaxira muy bis boobu nga xam ni mooy bis bi yàllay dajale ay jaamam mooy bis bi nga xamante ni ci la subhanahu wa taala di xisaab mooy bis bi nga xam ni ci lay dajale al awwalina wal axirin sunu borom ni yow ma bisu kero naqulu ci la nuy wax nun yàlla li jahannama ñeel sawara jahannam di ko laaj naa ko halim tala ci ndax fees nga wa taqulu muy tontu di wax naan hal min mazid ndax am na ndolleent ma dolli bu ngeen dollee ma jël wér na ci sunna ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yàlla du dañ di ta sànni ci sawara ba ñuy sànni muy digal ñuy sànni ba yàlla ci boppam mooy jël ndëggoom lu sell la teg ci kaw sawar ñu dégg xab-xab ji muy dankalikoog nit ñi yent yàlla bi nee na fala yàlla di doog a laajee sawara ne halim talaat ndax fees ga muy wax hal min mazid ndax am nga loo xam ni moom la ñuy dolli allahu akbar moo tax yent yàlla mu ni sawara daf doon daggente ak aljanna aljanna ni man day maay maa la gën sawara ni maa gën te xadis bi xadis la bu wér yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam yàlla dox ci diggante bi àtte ni yow sawara yaay sama mbugalukaay ci yow laay mbugalee sama jaam yi ma soob àjjana yaay sama xéewalukaay ci laay xéewale sama jaam yi ma soob wér na ci sunna ni sunu borom du dañ di fa tàbbal ay nit di fa tàbbal di fa tàbbal te yàlla moo ko digoon dinaa la feesal sunu borom moo digoon sawara ni ko danaa la feesal la am la an na jahannama min al jinnati wan naasi ajmain yàlla mu ni maa la dig ni da nga fees te su ma la ko digee sama dig yàlla digub yàlla buy am la yàlla soo tal lu mu digee wallahi luy am la yàlla ne ko hal hal imtala ndax fees nga wa taqulu hal min mazid ndax am nga loo xam ni mooy lu nuy dolli yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam daañ fa tàbbal di fa tàbbal di fa tàbbal ci ay nit ba dee def ba li nga xam ne mooy lakk nit ñi mooy alxijaar ay xeer xam ngeen sunu borom suratul baqara waquduha annaas walxijaara lay lakk mooy alxijaar mbokk yi loo xam ci luy tàng xeer wu tàng ko gën a tàng loo yaakaar ni lii lu tàng la dama ne xeer wu tàng ko gën a tàng borom bi waquduha annaas walxijaara lay lakke ay xeer la annaas muy nit ñi wal xijaara ak ay xeer wa in lam tafaalu walan tafaalu fattaqu nnaar sunu borom ni wattandiku leen sawar moo tax yéen ceeb dinañ wax ni ittaqu llah ittaqu nnaar walaw bi shiqi tamra benn xottu tàndarma nga am ko yëkkati ko joxe ko xol bu tooy ki nga ko jox ngir naa mu ci sawara yéen tamit bu ko xeeb bu ko xeeb de ittaqu naar mooy tandikul sawar walaw bi shiqi tamra xar tàndar na ci digg bi jël genn wàll nga saraxe ko ngir bëgg mucc yent mu ne bu ko xeeb allahu akbar moo tax yent yàlla sasam dafa gis benn jigéen Aïcha dafa gis jigéen ju am yërmande am ñaari doom xar tàndarma di jox doom ci doom ji lekk mu xarat tàndarma ji di waaj a lekk beneen doom bi tàllal ko loxo bi mu bàyyi lim doon lekk jox ko doom ji lekk yent yàlla bu mu dikkee Aïcha daal di yéemu mu nettali ko ko mu ni ko gis nga ko ko yërmaande ji mu am ci doom ji yàlla subhanahu wa taala moo ko ëpp yërmaande ci ay jaamam wallahi yàlla moo ëpp yërmaande ci ay jaamam te ku am yërmaande la sax ci ay jaamam waaye lii li mu wax wa ma rabbuka bi dallamin lil abid yàlla subhanahu wa taala tooñul kenn ci ay jaamam moo tax sunu borom mu ni bisub keroog di daañu wax sawara jahannam ni ko halim tala ci ndax fees nga wa taqulu muy wax naan hal min mazid ndax am nga ay ndollent yoo xam ne mën nga lu ko dolli sunu borom mu ni wa uzlifatil janna foofa dañuy yanjalee àjjana nag wa uzlifatil janna ñu waajal àjjana yanjal àjjana préparé àjjana lil muttaqina ñeer ñi ragalal yàlla subhanahu wa taala ci kaw suuf xëyra baid suñ muttax seq jéeg rek àgg ca biir xëyra baid uzlifatil janna ay udniyat dañ koy jegal ba mu ñëw jege seen vingt ans nga xam ne engrais dugg lay doon allahu akbar lil muttaqin bàyyi say bànneex ngir bëgg dugg aljanna muur say bànneex ngir bëgg dugg aljanna yàq say melaw ngir am ngërëmal sa borom jàng alquran ngir am sa ngërëmal borom lil muttaqin mooy ñi ragal sunu borom sunu borom ni xëyra baid la yukallafuuna taam al mashi kenn dina toog bu coono dox kër gi gën a rafet ci kaw suuf gën a bànneexu boo ciy dugg di nga sonn ndax da ngay dox waaye fii laa yukallafuun taabal mash sunu borom ne uzlifat danoo jegetil ajana lil muttaqina ñeen ñi jege ñi ragal seen borom gayra baid nekkul lu leen sori allahu akbar yént yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla dina taaral ca ajana ja ay xeeti taar taar yoo xam ni doomu aadama ji nekk ci bit dafay séen la ne ca biir subhanallah ay vitrine lay doon xéewal yoo xam ni laa raat aynun abadan mithla hadihi niam bët mësut gis luy mel xool mësul xalaat ba am lu ni mel allahu akbar lii moom la sunu borom wax nañ ko xëccoo wa fi dalik ci lii falyatanafasi almutanafisuun sunu borom ni ku am looy xëccoo ku am looy xëccu di ca jot sunu borom ni lii moo jëra xëccoo wa fi dalik ci lii falyatanafasi almutanafisuun mbokk yi xool leen àjjana saa bu ko sunu borom di wut wax baatab daw leen day jëfandikoo daw leen rek xam gi yàlla mi xam aljanna ndax moo sàkk àjjana xam gi mu ko xam ak la fa ne ci ay xeeti xéewal wallahi ku nu ko yéene la ku nu ko yéene la saari'u daw leen ila magfiratin min rabbikum daw leen ngeen njëkkante ci ajana joo xam ne njëggalu suñu borom ajana joo xam ne arduha samawaatu wal ard yaatuwaay bi mel na ni asamaan ak suuf allahu akbar ajana joo xam ne yaatu na ba mel ni asamaan ak suuf yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kii mujjee dugg ajana muy personne boo xam ne moom mooy dernière personne bu dugg ajana amul ku topp ci ginnaaw yonent yàlla benn waay la boo xam ne waa àjjana dañuy dugg ba jël seeni place ba noppi mu ñëw sunu borom ni ko duggal àjjana sunu borom génnee ko sawara ci ñi génnee sawara lay bokk mu ne ko duggal àjjana yonent yàlla bi nee na day dugg àjjana mu ne yàlla génnaat mu ne ko yàlla dugg naa àjjana waaye fekk naa àjjana fees na te xadis bii may wax xadis la bu wér mu ne fekk naa àjjana fees na sunu borom ni ko tuuga waaye àjjana du fees allahu akbar te lii mooy li wér àjjana du fees wér na ca benn xadis yéen yàlla bi nee na yàlla dana rokkas àjjana rokkas àjjana ba ñu ca war a dem jeex mu sàkkat ay mbindeef yu fay dem yoo xam ne bokku noonu sax ci ñu doon programme ñoo koy dugg mu ne yàlla àjjana nit ñi jël nañ seeni place ba noppi àjjana fees na kon man mëntuma faa dugg te fekk balaa moo dugg si xoolal allahu akbar allahu akbar ku bëri yërmande la moom sunu borom sunu borom ni ko mu ne yàlla waa ji mu ne yàlla gis nga kër gii may séen ci buntu ajana soo ma ko mayee dawal naa sëpp soxlaatuma leneen allahu akbar yàlla mu ne ko demal nga jël kër googu mu dem ba àgg ci kër googu fekk ndekete ci ginnaaw kër googu kër goo xam ni daanaka mën naa ni am mbaaram ñax la la njëkk a daj kër gu baax daa nga ca gannaaw ci loolu lay misaal bi kër gu dàq gën a rafet gën a taaru bay melax kër goo xam daanaka ki koy xool la mu yëg ca xolam mooy entre kay dugg ci man lay yëg mu ne yàlla man de maa la ñaanoon benn waaye dama lay ñaanaat gis nga kër gee may séen ca gannaaw doogalaa soxla dimbale ma rek ma yegg ca su borom ni ko yow toskare ñeel na la xanaa yaa waxoon ni su ma la mayee bii dootuma ñaanat mu ni ko maa ko waxoon waaye bii moom dara ngeen ñaan mu ngi du ma la ñaanat sunu borom ni ko may naa loolu demal bi mu demee ba yegg ci kër googu nekk ca gannaaw kër ga sunu borom a nga def kër goo xam ni kër yi kenn du leen tuddee sax kër ci taal ku taxaw mu ne yàlla man de maa la waxoon du ma la ñaanat waxaat du ma la ñaanat waaye bii moom sama xol mun koo muñ faw ma ñaan la sunu borom ni ko yow doomu aadama nii rek nga mel xamoon naa ne di nga ma ñaanaat waaye taman na mbébétan la hawla wala quwata illa billah wa qad anzala allahu subhanahu wa taala ahla aljanna ila manazilihim waa ajana yëpp jël nañ seen dëkkuwaay ba noppi bul ma laaj ñoo ne nuñ yaatulee waaye xoolal kiñ ne ne moo mujjee dugg ajana taman na mbébétan yéen ci yàlla ne yàlla danaan ko bu fekkee dëgg nga buur bi ëppoon doole ci kaw suuf lam amoon ci nguur buñ ko fëlee ba muy fukki yoon loolu laa lay may la hawla wala quwata illa billah kooku fu muy dugg kooku fan lay dugg koo xam ne ajal nit ñi jël nañ seeni place ba noppi yow yaa mujjee ñëw nga xam ne bu ñàkkoon a dugg wala ñàkk kër di am yow lay doon sunu borom ni ko buur bi gën a rëy nguur ci kaw suuf fëlal naa la nguuram ba muy fukki yoon allahu akbar yàlla subhanahu wa taala may ko lu mel noonu may ko loo xam ni ah lépp loo xam ni doomu aadama dana ko mbébét yàlla may na ko ko te jamono jooju fekk na ñuy dugg àjjana ñoom dem nañ ba fàtte sax lu mu nekkee woon démb kon aljanna am na góor gu baax xafidahullah yàlla yàlla sàmm ko mi ngi dund ba tey toog nañ di waxtaan mu ne aljanna mooy ay jeex na mu ne àjjana mooy ay jeex na tey amatul ay laa ulman yowma tooñ amatul ñu ne dugal aljanna udxulu ljannata antum wa azwajukum tuxbarun xoolal aljanna bu ñu fay dugg subhanallahi alazim yent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafay wax malaaka yi nanu séq nit ñi jiital leen escorte leen wasiqa alladina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara allahu akbar malaaka yi ci seen jëmmi bopp ñoom dañuy am kéemu yéemu ci ñëw dugg aljanna allahu akbar tëptum la ñu tëptum yéen da réussir ngeen yéen baax na ngeen ba toog yéen de lu ngeen ñàkkoon nee leen ndokk lu ngeen mënoon ñàkk ba di ko métti lu nee leen ndokk salaamun aleykum yéen de tey jàmm rokkasu na ci seen kaw tottum teey ngeen tottum baax ngeen bénéfice ngeen gañe ngeen am ngeen ndam lu dul deltu gannaaw ba faw fadxuluha xaalidin dugg leen sax dàkk amatut génn ah udxulul jannata bima sabartum ndeke àjjana nit bala saa dugg day muñ alhamdulillahi alladi azhaba anna alxasan loolu waa àjjanay wax noo ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu dindal aw tiis inna rabbana la gafurun shakur alladi axallana daara almuqamati min fadlih laa yamassuna fiha nasab wala yamassuna fiha lugub doo sonn doo gëmmentu doo xiif doo mar doo tisli doo febar la hawla wala quwata illa billah wér na ci xadis ne yéen kala même doom soo ko bëggee ci benn heure da ngay am doom doom ji juddu màgg ci même heure bi léegi nga dem sa yoon xadis wér doom boo ko bëggee day juddu léegi ci saasa màgg léegi mel na mu war a mel nga dem sa yoon xadisu Cheikh Nasirul Albani mu ne xadis la bu wér allahu akbar nit ñi bu ñu duggee aljanna dama ni mboolem lu sa xel daj ci xeeti xéwal wallahi ma nga àjjal loo xalaat loo xalaat ci xeeti xéwal lu dox sa digganteeg sa borom dama lay wax ni lu ko raw ma nga lay xaar wa uzlifatil janna yàlla mu ne yanjal nañ àjjana lil muttaqina ñeer ñi ragal yàlla gayra baid dafa jege lool la yukallafu na taabal mashi amul coono dox hada àjjana ji ngeen dégg maa tuwaduun moom lañ leen dig hada di maa tuwaduuna moom lañ dig li kulli awaabin xafiir képp koo xam ne awaab kuy dellu la mu ci yàlla xafiir kuy sàmm la mu kóllëre diggante ma borom borom bi sàkk la ne ko dara ba dara booloo jeex rabbaak rabbaak rabbuka tarbiyatan xatta kunta man ant yàlla yenkeewal la baaxal la defar la yar la ba nga mel ni nga mel subhanallah mu mel ni yow rek daanaka bu fekkoon buur day am yaay buur sa borom du buur sàkk la defal la sa lépp wa aataakum min kulli ma saaltumuh li ngeen di soxla ci ay jumtukaay lépp mu joxal leen ko huwa alladi xalaqalakum ma fi l ardi jamian kaw suuf yàlla moom lépp maa leen ko fi defar ba pare defaral la aljana ne boo góorgóorlu gis nga boo góorgóorlu lu mu tuuti tuuti rek boo dikkee dugg fa hada ma tuwaadun lii la yàlla dig li kulli awaabin képp koo xam ne ab dellu kon la ci yàlla xafiid kuy sàmm kóllëre bi al awaab mooy koo xam ne yarjiu ila allahi subhanahu koo xam ne saa bu tiitee saa bu jàqee dellu ci yàlla fii maa ngi profité mbokk yi ñu ni sàmm julli yoor yoor julli yoor yoor laa xam ci jaamu yàlla yi lu yent bi tuddee salaatul awaabin jullikati jaamu jullikati dellukati yàlla yi mu ne salaatu duha mu tuddee ko salaatul awaabin jullik ñiy dellu ci yàlla xiina tarmadul fisaal jamono bi tëngu giléem naaju tàng yi tax mu teqali ko neex yent yàlla mu ne jamono jooju mooy waxtu julli dellukat yi ci yàlla awaab xafiir kuy dellu ci yàlla kuy tuub ci yàlla wéet mu wóor leen ni ma wéetee ci sama néeg bi kenn new fi dinaa wéete noonu sama bàmmeel ni ma wéete sama néeg bi kenn new fi dinaa wéete ak sama borom noonu bi daa di ma xisaab amul kuy wéttali amul ku may dimbali amul ku may layal nga di ko xalaat di dellu ci yàlla di gën a gedd xeeti poñeti àddina yi nga xam ne yu ñàkk solo la te damay dem du ma dem di ko baamu yu ñàkk solo la xoolal lan lan lan moo dox sa diggante ak sa jaamu sa borom sa soxna si bi ngay dee fu mu nekk sa jabar ji bi ngay dee fu mu nekk sa daamar ji bi ngay dee fu mu nekk sa kër gi bi ngay dee fi mu nekk ñooñu ñëpp amu ci kenn ku lay jege ba ngay dee allah xel taxut di wax koo xam ne bi ngay dee muy gis sëb néew jege la allah xel taxut di wax doomu aadama buy xalaat loolu xalaat ni loolu ñàkk damay loolu ñàkk ñàkkal lu ne waaye bu ci àjjana bokk loolu ñàkk te am àjjana yaa ko tuddee ñàkk ndax yaa xamul dara waaye ñàkkoo waaye wallahi summa wallahi summa wallahi loo am te àjjana bokku ca dama ne loolu du am am ki am ba jiital nga xam ne may la milliard bu dara ci moom benn ba problème bu ko amee day xaru ndax attanitu problème ndax lu mu bëgg mu faju nit dana àgg ci xeeti am am foo xam ne loo bëgg mu faju waaye dama ne loola billahi alladi laa ilaha illa hu loola par rapport ak ajara dama ne dum ko ginaar wu bàyyi koo ajara sax toll ni yént yàlla ne nee na nga wartal sa karawaat sa yet ca ajana ñu mètre ko xool loola ñaata mètre la xool fii réew mi fi ne fii ñaata par mètre carré fi gën a cher ci dëkk bu ñu ko jaay ay mètre carré ay millions lañ lay wax yéen yàlla ba nee na mètre carré bi gën a tuuti biir ajana bu ñu jaayoon ajana du ko mën a jënd yéen yàlla bi nee na mètre carré bi gën a tuuti biir ajana aw yet xoolal yet way daa koy fas yéen yàlla bi nee su war doon ñu yëkkati yet ba rëgg natt ko ci ay mètre xool fa yet wa tëdd ni mu sewee ak ni mu gàttee yéen yàlla bi ñu jaay ajana du mën a jënd lu toll noonu la hawla wala quwwata fulaar ji jigéen takk ci boppam yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam buñ jaayoon àddina amul jëgam fulaar ji jigéen ñi àjjana yay takk ci seen bopp yi buñ jaayoon àddina dama ne amul njëgam wallahi sadaqa ya rabbana wa mal xayaatu dunya illa mataaul gurur àddina day ware nun dañoo neex a war parce que moom lañ gis moom lañ gis waaye bu nu yàlla subhanahu wa taala waroon àjjana te wallahi jëm sax ndax lim nuy wax buñ ko gëmee mel na ni war na ko hada ma tuaduna li kulli awabin xafid man xashiya arrahman ku ragal yàlla bil xaybi ci lu faddu wa jaa mu dikkal boroomam bi qalbin salim ci xol bu mucc xol bu set xol bu wér gële xol boo xam ni bokkaale sori na ko comme bay ko sawu sore xol boo xam ni gëm wala bëgg ku dul yàlla sori na ko lool xol boo xam ni saa boo ko tuddalee leneen lu dul yàlla sax mu mer mbokk yi ndax yegg nañ foofu ndax yegg nañ foofu ñu ngi may nettali mbokk moo xam ni rahmatullahi alayhi ci ay mujjantalu dundam lu gàtt ki ma ko nettali nee na sama saal la ko defee eh, tele lañ doon seetaan ndeysaan waa ji di wax ab kilifa di ko wax ni ko yow de yaay nangam yaay nangam ba di ko yaay yàlla mbokk mi dafa daanu xëm mbokk mi dafa daanu xëm góor gi ni ma ñoo ko sotti ndox di ko sotti di ko sotti di ko sotti ba mu jug ci weer woowu ci la mbokk mi faatu mbokk moom mu ñu xam la moo ngi rafet njort ci lu wóor na ma ni loolu xol bu bëgg yàllaa ko man wallahi xol bu bëgg yàllaa ko man gis nga xol bu bëgg yàlla saa boo déggee lu dut noona boo ci mun dara sa dana la feebar xoolal fii ni dunu tey ñaata ci ay shirkiyaat loo xam ne yow wallahi waxuma la yow yow yow doo ko wax yow alhamdulilah doo ko wax waaye dana ni nopp bu am jom bu saxee ci xol bu am jom sax war na karu sa dégg ci ay shirkiyaat ci ay jiin nit ay mbir yoo xam ni subhanallah billahi alladi la ilaha illa hu dama ne am na saxaaba yoo xam ne bu ñu ko déggoon dee wallahi alazim dañuy dee am na lu muy wax fii tey bu ko saxaaba yi déggoon dañuy dee wallahi dañuy dee leneen nga dégg koo xamante ni day dégg benn baat yow koo xam ne bu joxee nee yonent bi rek wala nga bëgg a dagg baatam kooku buñ ko bu déggee ay mbir yoo xam ne ah yit gën a kawe ca yàlla moom moom la ñuy jox nit lan la ñu jural tey moo tax suñu xol yi baaxut dama ne suñu xol yi amul benn jàppukaay benn jàppukaay xol yi amu ko dañu tey am lu ñuy wax lii may wax lépp dégg nañ ko ba tay benn dañu ko jëriñ duñu ko jëriñ saar wun la tafsiral dégg nga ko asar gun la wax ci min aataari salaf dégg nga ko dara lañ dul jëriñ duñu jëriñ li tax duñu jëriñ mooy suñu xol yi ci boppam dara yàlla moo ci nim dara yàlla moo ci nim benn jàppukaay amu ko saa boo demoon ba sa xol mel na mu war a mel danañ danañ jëru suutu xaaf benn aaya rek laa wax xoolal saaba yi benn aaya tëral nit feebar weer wallahi inna adaba rabbika la waaqia maa laku min daafia omar tëb na ko feebar weer weer weeru yàlla ñu di ko seet si nit ñi xamul lu xew ndekk lii moo ko tëral ah nga gis ko xam dana dañ naafee ba yegg ci aaya sàngam guddi gi yépp muy tardiit aaya boobu lu tax parce que kaana al qulub kaanat al qulub salima dañoo seetal wecc bëgg yàlla loo ci def lu mu ndaw ndaw ñu doy loo dafa ni boo feebaree kenn du la mën a suural gis nga bu dee da ngaa wér tuuti boo ko lekkee dara boo feebaree dootu wérati alqalbu salim te amut kuy mucc yow alqiyaam lu dul xol bu mel nii ngay indi yowma la yanfau maal wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim sunu borom ni ku andiwut xol bu mel nii xaw ma loo mën a àndaale koo mën a àndal waaye doo mucc xol bu mucc mooy bii xol boo xam ne amul lenn ci ay feebar saa bu déggit munkar jaral na ko suur lekk te fekk mi ngi xiif ndax am lu ko metti saa bu déggee ay shirki mu ne jaral na ko futteeku xeex waaye tey looy dégg bal ñun kay moo ci réer a faf dégg diw li mu wax loolu da lay wan ne dara ci ngëm nag nekkatu fa dara ci ngëm nekkatu fa yéen ci yàlla bi ne saa boo demee ba naqar lu mooy yàlla gi amatul ci sa xol mu ni fama baada dalika min darra iman darra amatoo ko xol ñaata ci ay munkaraat ci ay xeeti wax yu bon ci ay musique ci ay shirkiyaat ci ay nangam ay foo dugg foo dugg wallahi yooyu da ngay duggoot da ngay tiit da ngay dégg nit di wax ay wax yoo xam ne xoolal saxaaba yi ridwanullahi alayhim benn saxaaba bu neen bu ne yonente bi nee na nga naa ko Abubakar nee na day tiit day lox subhanallah Abdullah ibn Abbas loolu la wax maanaam leen Abubakar ne maanaam yonent bi ngeen am Abubakar yéen xanaa da ngeen a bëgg yàlla taw ay xeer ci seen kaw waxu yonent bi kenn yàlla kenn dina ko tëkkale waxu Abubakar xoolal koo xam ne jël waxu diw di ko teg ci waxu yàlla rek lay tiit yàlla wàcc ci ay xeer kooku bu déggoon musiba yi ñuy wax tey rahmatullahi ala Xusayfa mu tax Xusayfa xool mbooloo moom yàgg mu ni wallahi li ma xam te wér ma mooy li ngeen nekk lépp wóor na ma ni la ca yonent bi bàyyi woon lépp li ngeen mënul ak yonent bi mooy rukoo sujjóot ni ngeen di ko ni ngeen di sujjootee mu ni noonu la yonent bi doon def waaye mu ni li ngeen nekkee ak la yonent bi nekkoon xamatuma lenn lu mu roog moom subhanallah xool xusayfa ko waxee xusayfa bu ñëwoon tey lan lay wax damay wax ne bu ñëwoon day dee bu ñëwoon dama ne day dee ndax li muy dégg ak li muy gis loolu du ko attan xoolal Abu Dar ci jamono Usmaan ibn Affan te Abu Dar boo ko laajee ak Usmaan ku gën Abu Dar dama ne da lay dóor ndax day yaakaar nañ koy font ndax xam nañu Usmaan ko gën waaye xool Abu Dar mu ne yéen ñii ci seen jëmmi bopp saxaaba leen waxal man damay génn seen dëkk bi foo jëm muy damay jaamu ji sama borom fii daa amul jaamu yàlla mu ne ahan kay waaye yéen ci àddina ngeen nekk man nekkuma ci àddina mu ne asmaan jël leen seen àddina ji man dama man ma dem ak sama àllaaxira ji lii bokk na ci li ko génne demoon na ba Abu Dar pour bañ na wuuteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak gis mun amoon maqaama mooy am ci kaw suuf ba Abu Dar gis la ngay def munkar lu dul dana ko dindi lu dul dana ko dindi ci kanamu buur ci kanamu buur dagg na fa bopp nit moom Abu Dar ab saaxir buur jëlub saaxir ñëw muy def ay sexar ci kanamu buur Abu Dar yëpp ko lambaayu dugal jaateen ci biir ñëw ba ci kanamu buur dagg waa ji boppam te amul lu muy tiit mu ne ko man la ma yant bi jàngal laa jëfee xaddu saaxir darbatun bi sayf te gis nga wa xaytuma taxaf ilahaka al ahad saa boo ragalee yàlla wallahi ku dul yàlla da lay ragal dama ne kenn du nga may wax muawiyata ibni abi sufyan dama ni bu mosaan a jaaxle day dem ci osman boole abou zar ndax mënuñu ko daal lu tax parce que xol kenn talaat ni mu delloo ci yàlla na lay gën a muccee moo tax yonent bi xool ko ba sabali ko ne ko yow tamuusu wa tamuutu waxidan ah taay wa taayisu faridan booy dund da ngay wéet booy dee da ngay tumuraanki te nam ko waxee woon noonu la amee kon mbokk yi jom njaat suñuy xol bokk na ci li ñuy may aljanna ji wallahi ku dugg aljanna loo doon wut ci ay xeetu xéewal di nga koo fekk rot na ci xadis bu wér al imaamu tabaraani génn ko ci al mu'jam yépp yàlla bi nee na benn waay dana ni cëpp biir ajana ñu taaral soxnaam si mu war a am ci biir ajana ja mu toog fa di ko xaar soxna si yabal ay mbindaanam di ñëw te li may xadis bu wér mbindaan yi dañuy ñëw ba jub ko gis nga problème doomu aadama ak ni mu ñàkkee xam ak ni mu doodee ak wala la fa àjjana ni mu kawee waa ji moom nit ki kenn ci mbindaani soxnaam lay séen day waaxu ba yegg ci kanamam su jóor ci woon tànkam yonent yàlla muy fekk daf koo tegoon yàlla subhanahu wa taala ndax boobu kenn gisagut yàlla mbokk yi ki seen mbindaani soxnaam su jóotal ko kooku bu gisee mbindaa soxnaam lu muy def kooku bu gisee boromam lu muy def mbindaana mën a ko siggil mu ne ko ana xadamun min xuddaamik man bi ngay sujjootal surga laa ci sa surgay soxna dañoo ñëw pour jël si la te loolu xadis la bu wér allahu akbar yent yàlla bi julli sallallahu alayhi wasallam di naafila ah di jàng laay jooju ci suratu alwaqia wa kawaiba atraba ah wa kasan dihaqa ba yegg ci inna ansha'nahunna insha'a allahu akbar kon àjjana ni mu leen dex nekki ummu salama mi ngi doon nelaw waaye bëgguk àjjana tax na mu yeewu ba jub na léegi mi ngi déglu yonent bi li mu wax sallallahu alayhi wa sallam di déglu di déglu di déglu ba yonent bi pare allahu akbar ummu salama soxna yonent bi tàqalikoon ak sagoom lan moo ko tàqalee sagoom àjjana jim dégg ci boppam moo cuq moo roog li nga xam ne mooy sidi ci xolam allahu akbar mooy laaj yonent bi waa bu ñu duggee àjjana nangam waa bu ñu duggee àjjana nangam di laaj di laaj ba ni ko waa ñun ajjana soxna yi ajjana yi nin taaroo ñun buñ duggee ajjana lu nuy am yonent bi ni ko giñal naa la ci yàlla yéenay dàq soxna yi ajjana yi bu ngeen duggee allahu akbar ndax sallaytun suntun rakaatun sajadtun da ngeen doon julli di sujud di woor di sonn di xiimal seen biir ndax yàlla subhanahu wa taala ñeeñ ak yàlla leen bind ñoom defuñ ci loolu dara allahu akbar xoolal ki nga xam ne jigéen jigéen moo ko fàbbi te ak a bari lu muy fàgg umma bi tey fàbbi umma bi tey la hawla wala quwwata illa billah ku xam alaxira xam ajana gëm ajana bu wér xam la fa yàlla waajal ci ay jigéen dama ni nga suur ñu ne fii kën sunu borom mu ni xoor maqsuratun fil xiyam soxna yoo xam ne yàlla da leen a defar ci xeeti taar loo xam ne seeni bët li ci war a ñuul moom la ca war a weex benn bu ca nekk yàlla jox na ko lam yooyu maqsuuraatun dañoo gàtt tànk fil xiyaam soxlaatuñ keneen seneen leneen wa xoomi ayn yàlla mu ni soxna yoo xam ni xool seeni bët buñ la nëbboon lépp seen lépp soxna si buñ ko masqué woon soxna si ajana si te wér na ci sunna yonent yàlla bi nee na kenn ci soxna yi ajana yi bu tabli woon ab tabli tam mu dal ci géej gi liy weex tamu géej gi day soppi ku nekk suukar allahu akbar moo tax benn waxkat bu neex law basa law basaqat ah fi lbaxri lmaalixi shahda luaabiha ah ah su fekkoon ci ni kenn ci ñoom daa tapli ci géej gi mu ne wextanu géej gi soppeeku nekk lu saf suukar mu ne wala woote ak fin ahsaabi jigéenu ajana bu ko yàlla ne woon tëpp ci kaw suuf mu yëkkati tànkam fekk ñax mu dee mu tekke tànkam mu ne bu teggee ñax ma dana naat min gayri ma qatrin te taw du wàcc allahu akbar jigéenu ajana bu tegoon tànkam ci kaw ñax mu waw bu teggee ñax ma mu ni dana ballaat daal di wert min gayri ma qatarin te taw du wàcc sunu borom ni ka annahunna alyaqut wal marjan la nga yaakaar ni mooy yaqut ak marjan nga boole ko amble loxo du fa yegg bët di ca puukariwu te moomu ko yàlla mu ni soxna yi ajana yi noonu lañ mel ci taaru ka annahunna alyaqut wal marjan lam yatmisgunna insun qablahum wala jaan yàlla mu ni góor mosu leen teg loxo jinne taxut di wax sunu borom mu ni ñii ñëpp li ashaabi lyamin ñu nar a dugg àjjana rek urban atraran li ashaabi lyamin moo tax sunu borom mu ni wa uzlifat aljannatu lilmuttaqina gayra baid loo soxla wa lakum fiha ma tashtagihi al anfus wa talazzu al ayun wa antum fiha xaalidun sunu borom mu ni udxuluha bi salaam kon nag kaay leen udxuluha tàbbi leen ci ajana ja bi salaamin ci jàmm allahu akbar ajana hiya daaru salaami xaqiqatan sunu borom ni lahum daaru salaami inda rabbihim ñi gëm yàlla lahum ñeel na leen daaru salaami kër jàmm inda rabbihim fa seen borom yàlla allahu akbar lahum daaru salaami inda rabbihim wa huwa waliyuhum yàllaay seen péete foofu wallahu yad'u ila daari salaam yàlla mu ni maa ngi woote daw si leen dugg si kër jàmm muy aljana wa yahdi man yashau ila siraatin mustaqim ma arhamaka ya rabbana xoolal gii xeetu yërmande yad'u wallahu yad'u ila daari salaam yàlla day woote ngir nan ñëw dugg ci kër jàmm gi lahum daaru salaami inda rabbihim la yasmauna fiha lagwan wala tasima illa qilan salaman salama yàlla mu ni waxi boosóor waxi caaxaan waxi tangalagaay waxi mu fo dara amu fa jàmm rek lañ fay dégg moo tax suñu borom ni udxuluha tabbi leen ca ajana ja bi salaamin ànd ak jàmm dalika bisub keroog yowmul xuluud keroog la bisub faaw di tàmbali nag allahu akbar aljana la fa ni ci ay xeeti xiiwal yépp nga xam ne yow bu nu la koy waxal ka cay wax day wax ba sonn te tàmbaleegul ndax bu leen fàtte ne liñ ci xam lam cay wax bu leen fàtte ne la ci yàlla nettil lam cay wax allahu akbar subhanallahi alazim dama ni lii moo taxoon saxaaba yi seen yuut di wadd nit bu ñu koy mbébét bëgg dara ba ay yuutam di wadd damay wax ni nit ku bëgg dara ba ay yuutam di wadd bu ñu koy melal saxaaba yi dama wax ni ñoom lii moom moo yóbbuwoon seen lépp gis ko naan yéen saa sallam ahadihi tamarat in baqitu hatta akaltu ah sama tàndarma yi ma yore sama loxo man su ma fi desee ba lekk ko ah waaw su ma dee dinaa mu ne ko waaw waaw mu ne kon de man aaj tàndarmay àjjana yi may lekk ñàkk fay daa ma ko yóbbee daal di koy sànni daal di xuus ci biir xeex bi ndax gëm na la ko yent bi dikk sallallahu alayhi wa sallam xool xaarisata bnu Nu'man wala xaarisata boog nga xam ne keroog ba mu faatoo ca xasatu badr ca tibb yu njëkk ya ñu rey ko ba yaay ja laaje yent bi ni ko innam naka xaarisata la fi lfirdawsi l aala yanxamisu fiha xaarisa nga ca firdaws yu kawe ya yu nuur ci biir ajana ya allahu akbar ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen allahu akbar yéen ci yàlla dugg ajana génn dégg ab waaye buy jàng alquran bu ñuy wax xaarisata temeen beneen saxaaba ne saxaaba ba ay xaarisa yent yàlla bi dikk ne xanaa kii du xaarisata ñu ni ko waawaaw muy lu mu fii def ñu ne ku fonkoon yaayam la yonent bi ne daakal birru yafaalu bi ummi daakal birru yafaalu bi saaxibi mbaax day baaxe sa ñaari wayjur nii lay def nit ndekete moo dugal xaarisa ajana ajana allahu akbar xoolal bilaal allahu akbar yent yàlla mu ne ko ma de dégg naa xas xasatana alayka fil janna bilaal sa keppar keppar yi dàll yi day biig dégg naa ko biir ajana allahu akbar allahu akbar ndaw soosu may dégg muy jóge kan la ñu ne ko mooy alxumaysa muy ummi sulaym yëpp ay xadis lay wér ñoo xam ni yow àjjana nga jëm yow àjjana nga jëm yow àjjana nga jëm te koo ci dem këram fekk muy dund da ngay jàpp ni àjjana ji nga jëm jooju ñu ko wax sawara nga jëm lan ko wax allahu akbar allahu akbar xoola abu hurayra ak ni mu amee woon ngëm yàlla ak ni mu dëggoo woon ni mu jege woon yonent bi salallahu alayhi wa sallam xoola abu hurayra abu hurayra to demoon na ba tollu jamono tàgge tàgge rek boo ko defee day xëm tàgge diw dee na boo ne diw dee na bu fekkee saxaaba la day xëm ndax tiit lu tax ndax rek tëkku gi leen yonent yàlla doon wax naan dina am ci yéen koo xam dina murtat génn ci lislaam moomu yaakaar ne yàlla bu mu doon moom mbokk yi fala yamanu makra allah illa alxawmu alxaasiruun konte ku ko am yaakaar ngi rëcc nga mucc nga wallahi yow yaay ki nar a perte moo tax suñu borom ne udxuluha bi salaam tàbbi leen biir àjjana dalika yawmul xuluud lii day mooy bisab sax bi amut génn amut màgget loo bëgg dañ koy am maa tastagi l anfusu wa talazzu l aayun li bakkan bëgg li bët bëgg loo bëgg xéewlu dañ koy am allahu akbar sunu borom ni lahum fiha ma yashaa'un ni ngeen ko bëggee noonu laa leen koy defale lahum fiha ñeel na leen ci ajana ja ma yashaa'una lu leen soob allahu akbar allahu akbar yàlla day tuusi ay xiiti xiwal loo xam ni ha la hawla wala quwata illa billah alhamdulillah ba nga xamante ni yàlla day xamle na ni waa ajana da leen di def melokaan yu bokkut ak yi am waaye bu ñu loolu lim mën a gëm mooy sunu jëmm yi mënta dékku loolu waxuma la mugal ma waaye xéewal gi ci boppam ñun mënuñu ko dékku moo tax yent yàlla da lay dagg yàlla mu ni yàlla lay daggiwaat mooñaat la bind la ci bindam aadama si tuuna diraa ah ponkal mu njool ca kaw moo xam ne tey bu rukoo digg ginnaawam dana laal fii ci kaw allahu akbar yent yàlla mooy amut sax sikkim kenn du ko sax sikkim ci ajana ja jigéen ji du gis baax amut tafli amul dem wanag xeeti parfum yeni ja jëfandikoo ca ajana ja damay wax ni ci biir niir yi lay balluloo ak tap yi di génn loo yaakaar ni lii bu fekkente ni nit dana ko yaakaar ci xéewal damay wax ni fa nga yem foofu la ajana tàmbalee moo tax mu ni lakum fiha ma yashaa'u xalaatal loo yaakaar ni bëgg nga ko sunu borom ni boo ñëwee ma nga fa lakum fiha ma yashaa'u wa ladayna mazid yàlla muy te am nañ ay ndollenti ndollent yoo xam ne ñoom sax fooguñu ko woon allahu akbar waa ajana dugg nañ ajana xéewal yaa ngay jolli lépp loo yaakaar ni ma nga koy jolli ci ay xéewal ma ngay jolli sunu borom subhanahu wa taala ba léegi kër gisagu ko yàlla mu ne waa ajana est ce que duma leen dolli xéewal waa ajana kulluhum yatakallamuuna ala sawti rajulin waaxid ya rab ñun loolu yi dolle ci alam tubayyid wujuhana xanaa du yaa leeral sunu kanam yi bind nu melokaan yi nu mel amatuñ coono amatuñ naqar luñ soxla ñu ngi koy am sunu borom ñun doy na sëkk allahu akbar ñun doy na sëkk waaye dañoo fàtte ni yàlla dencal na waa ajana loo xam ni sax na ci waxi borom xam-xam yu bari di wax ni moo dàq sax dugg biir aljanna mooy gis yàlla subhanahu wa taala wujuhun yawma idin naadira ila rabbiha naadira axil mumin yow mi jàng aqida ñu lay wax aqidatu ahlu sunna wal jamaa di la melal yàlla bu ñu ne la loxol yàlla ñu ne la baal sa yoon newu ci bila tasbihin wala takyifin wala taatilin wala tamthilin bu laal de loxol yàlla tànk bi yàlla ba mu teg ca kaw sawara sa kanamu yàlla ah ñaari baaramu yàlla loo laal rek ahlu sunna wal jamaa bu laal tegal ibraruha kama jaa amiruha kama jaa romb leen comme ni mu dikkee dama ni la ku ñu la xam ku xamul dara moo ko dul fee dama ni kooku bu ko déglu ndax kooku nee na la ñoom ñoom imam malik xamuñu dara imaamu malik imaamu daaril hijra dama ni laajut lu muy wa nu mu mel sax boo ko masaana laaj mu tëj la police moom amoon na kàddu ci nguur gi bu ne la jugal sama xalqa da nga jug bu ne sur tay tëj leen ko ñu tëj la dama ni loxol yàlla mu mel tànk ba nit bu laaj bila tasbihin wala takyifin wala taatirin wala tamsil bul ni amut bul ko nuróoyeg leen bul ni nii la mel bul daw aw xal ba tàbbi ci sawar amir ruha kama jaar salafu salih nangama yàlla saxal boppam as al asmaau wa sifaat daa bokk ci pas-pas bu wér mooy melal ko na ko yàlla melal subhanallah téere bi gën a tuuti boo koy jàng ci pas-pas sa xel di daj nu mu war a mel nu mu war a mel jëmmu ja wa yabqa wajhu rabbik sa jëmmi borom wa yabqa wajhu rabbik allahu akbar yàlla subhanallah yàlla moom nan la mel wan melokaan la yore billahi alayka ndax boo dajee ak muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ci ajana ja toog di ko xool ak li ko yàlla dénkoon ci taar ndax du dox sa digganteeg taar ja ba doo dugg sa kër ab saxaaba yi ñëw jooy ba xolum sedd mu dem bu ko yonte bi ne looy jooy ak loo fi wut si bu ne ko li ma fi wut si mooy yàlla dama nattoo mënuma xëy suba te gisuma la su ma la gisut damay feebar looy jooy muy damay ragal ëllëg yàlla may la ajana ca ajana yu kawe man ma am ci yu suufee duñ gise yonent bi teg la ko ne ko almaru maa man ahabba wa in lam yaamal bi amali nit day këm bëgg lay àndal donte jëful ay jëfam saxaaba yi nee nañ yonent lu mu mata wax ñu kontaan ci bu karat ba moo gën a raw kontaan te giñ kontaan ndax wóor nañu bëgg nañ muhammad sallallahu alayhi wa sallam subhanallah kon yusuf alladi uatiya sabra alxasn ah jigéen ak ni mu mën a taaroo góor gu xool ba yéemu ca moo ba fitnawu subhanallah alazim xool ko ko na mel ndax boo gisee sa borom subhanahu wa taala yow doo tàqalikoo ak sa sago allahu akbar àjjana mu tàqalikoo sago loolaay tax moo tax suñu borom ne wujuhun yawma idin naadira ila rabbiha naadira xar kanam yoo xam ni fa leer yem faram tàmbalee lu mu xewlee dañoo gis yàlla allahu akbar ndeke gis yàlla ci boppam day dolli taar ci biir ajana ja allahu akbar suñu borom subhanahu wa taala mu ne lahum fiha ma yashaun lu ngeen soxla ci ajana ma jox leen ko wala day naa mazid te am nañ ndollent borom xam-xam ñu ne al mazid mooy al ziyada ziyada jooju mooy gis yàlla subhanahu wa taala allahu akbar yàlla subhanahu wa taala ci ban melokaan la ñuy dikkalee ci ban melokaan la ñuy dikkalee allahu akbar ndax ci suuf si lay pëllee ndax ci asamaan sa lay waddee segam foofu dañ fa gis suuf ak suuf ak asamaan ndax buy ñëw ci àjjana da lay génnee buy ñëw nu muy mel yan melokaan lay àndal allahu akbar nga gis yàlla subhana taala mu feeñu ay jaamam wér na ci ab asar ni yatajalla al maliku yadxaku ila nnaas yàlla subhana taala génn di muuñ wala muy ree ay jaamam yi nga xamante ni ñoom la yàlla subhanahu wa taala xéewale ñu dugg biir aljanna allahu akbar allahumma la tahrimna ru'yatak allahumma la tahrimna ru'yatak allahumma la tahrimna ru'yatak اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ñoo ngi taxaw foofu di ñaan yàlla subhanahu wa taala borom ñu defal tawfiq lépp lu jub day mi ngi bàyyi ko ci suñu borom ñu ngi koy sante falewul hamdu wal minna lu ci dëng bu ngi bàyyi ko ci ñun ñoo ngi koy jéggalu suñu borom wal ilmu inda allahi taala wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain
alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ñu ngi santaat yàlla subhanahu wa taala di gërëm mbokk bi nga xamante ni moom lañ defal waxtaan bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu booleñ ci jaam ñi nga xamante ne ni alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana ulaika ulaika alladina hadahum allah wa ulaika hum ulul albab ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ci jaam ñi nga xamante ne ni saa bu déggee wax dañu tànn la nga xamante ni moo ci gën a rafet nga di koy jëfe ñooñu ñooñu ñi nga xamante ne nii borom sontaan daf leen jubal te ñu ñooñu ñooñu ñi nga xamante ne ñooy borom xel yi dañuy wax ne waxtaan bi nga xamante ne nii yàlla fa daal defal na bokk daal ñu koy taxawee nekk na loo xamante ni yóbbal la ñeel kenn ku nekk ci ñun dañuy wax bu fekkonte ne séminaire dafay am fii mën nañ ni sunu ngiru vacance wala sunu ngir dund am nañ benn yóbbal boo xamante ne nii buñ ko yóbbaloo wallaay laa dañuy nekk ñoo xamante ne dañuy dund fekk ñu ngi nekk ñoo xamante ne dañuy dund ci jàmm waaye dañuy dee fekk ñoo xamante ne dañuy dee nekk ñoo xamante ne dañuy dee ci jàmm kon kenn ku nekk mun naa di jéem a dégluwaat li nga xam ne mooy waxtaan bi seetantarat bi nga xam ne moom mooy aaya alquran yi nga xam ne te ni tafsir na ko fi bu ko defee ñu gën cee jëriñ bu baax a baax ñuy ñaan yàlla santaam daal di dolli xam-xam oustaz bi daal di koy yokk ba muy daal di taxaw suñu kanam bàyyi ko fi muy ñuy gën a jëriñ ci li nga xam ne moom mooy waxu yàlla subhanahu wa taala ak waxu yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal borom bi subhanahu wa taala war a koy may tawfiq di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu daal di ñuy bañ a umpale li nga xam ne mooy aljanna daal di ñuy dummóoyal li nga xam ne moom mooy safara lu ko yomb la moom borom subhanahu wa taala yàlla nañu ko defal hada wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk